salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. allo. waaw allo. Modou Maram. naam. Cissé. waaw. Cissé Kay Mor. waaw. Cissé na ngeen def. ñu ngi sant. naka yi tey. ah Modou tey sa baat bi yaa ñu ne de loo ndekkee. kaar kaar kaar kaar sereng. ah. sereng sereng. ah sereng nga ndekkee tey. waaw. Ah. sereng bu am buddite xar wala. sereng rek laa ndekkee yow kaa ma itam. ah. man kaa ma njaay tooñ. luy lool. waaw damay laajte rek xam nga damaa xam ne jëm na tabaski lañ jógee te yaakaar naa ne ndaw gi moom jeex na léegi ay buddi di def mbàq yi moo tax ma lay laaj rek waaye loolu kenn dara nekkul si buddi ak mbàq ñun duñ ko la denc ñun am na ci ah, ngeen koy def duñ ko la denc lan laa ah am fi ngeen ko denc dañ koy rek ah jëm ni Modou tey ndax maruñ leen fu jëm ci lan ma mel ni faa dégg nga nekk sere dafa nga am xew a naqar tey waaw xewal na xale seen dëkk yi laa dégg na dëj boo xaaral ah, de waaw Modou Modou yow tamit nag Modou Modou xam nga na yow dafa am benn problème boo am yow ma heure bu ñu ma ne yow feeg yeggoo suñu dëkkaa Modou la gënal man sama xam-xam jéggi na loolu man waxatuma dëkk man réew laay waxal adduna laay waxal xam waaye dégg ah xewal naqal nga wala jëf ma ndax bi nga waaye damay ndax da da nga am xewal naqal wala xewal bànneex dama laajte rek la xam naa xewal naqal de seen dëkk am dëkk ah dama suñu dëkk lu fa xew doomu ko njëkkaa yëg de ah wala jëm nii de. ni ngeen def yéen a ngi xëy tëdd. xëy ah li ngeen si li ngeen nekk ba comme yàlla ji tawul moom. doxi suñ maraade ah. ma ne doxi suñ maraade. ah da ngeen doxi seen soxla yi. ah loolu ba Modou. waaw. barki démb. allo. waaw maa lay dégg waaw waaw démb réew mi dama dama gis président Abdou Salam dugal fi benn waay boo xam ne allo. maa lay dégg lay dégg dama gis mu dugal fi koo xam dafa dafa yar ay jur yu ñu waaw ah. waaye waxal rek maa lay léegi mu ne nag mu ne dafa xëy. ay hmm. quatre heures du matin trois heures du matin. fekk am na hmm. koo xam ne daf ko see wuutu. Hmm. remplacer ko si. allo waaw ah, waaw waaw. waa si compte mi ak raay mi ak joxe ngooñ mi. léegi nag bañ ko dugalee si réew mi nag kenn ku nekk joxe sa man ma joxoon sama xalaat. waaw waaye mu mel ni dégg-dégg bi am na ñoo xam ni mu ko waxee ak ni ñu ko déggee nekkul benn. waaw léegi nag yow yow yow ma la doon laaj yow sa xalaat. ci nga xam ne da nga daan fajar. di jóg bëccëg mm. di joxe suba te def dara nga xëy. ñu mm. remplacé loolu laa la wax loolu laa la doon laaj yow luy sa xalaat. waaw sa xalaat bi nga wax joxe woon de duggoon naa ci démb réew mi tontu la ci. Euh, wala wala la loo waxoon yow. maa li ma waxoon mooy ne kebaane ni nga waaj daal yàlla dañ ko ut tey ci xar mi raay ma ak nan la. dé dé déedéet déedéet Modou. bu fekkee la nga waxoon si démb réew mi kon da ngaa déggutoon li ma wax de. déet yow li nga ma wax kay dégg naa ma ne. waaw waaw dafa am kum fi dugal yàlla dogal ñu wuutu ko ci yéen la ma xamee woon muy ay xar. waaw waaw dama dañ ko taa wutu pour remplacer ko si xam ne bi toppatoo bi waaw tax ne moom moom yow nun nga yow nun nga gisee bi loolu nga gisee waaw di loolu moo am di moom daf ne kii dafa yoroon loolu moo waaw déglu ma loolu moo am waaw waaw moom moo ko dugal ne kii daf yoro yoroon ñu jël ko ay quatre heures du matin dañ ko taa wutu waaw waaw waaw waaw léegi wutu googu koy ma ne lépp képp koo xam ne xalaatam Keba doy na la waaw te de di déglu Keba waaw te li moo wax yow jàpp nga ne borom xam bu wér la ah yow jàppoo ko yow. waaw déglu ma rek déglu ma laaj ma wax waaw waaw waaw waaw. yàlla la huutu ci say xar ci say nag ci say fas ci say ganaar. ah loolu moom ci say saakoy kemb ci say machine yoo tegee yoo xamante ne yëpp mën na la caa huutu ci xamee ba seere ba ak day seere ba. ah lu waral loolu nga waxee noonu yëpp nga xam ne ni yow dara du la ci war. moo lu nga waxee xool na de ma ne lu waral nga waxee noonu. waaw comme fa ko ci wutu kay yow war nañoo mën a wutu ci li nga am. ah déedéet waaw ah, déedéet déedéet Modou. waaw ni ma ci ak commande yooyu yëpp mu wut la jë moo tax ma doo sonal kenn nu ma waxee ak nu nga déggee du noonu de man li nga waxee rek déggee naa ko wallaay waaw euh, waa ma ne waa kay ba euh, laaj bi ma lay laaj xam naa ñu bëri na yaakaar naa bu fekkee nemmeeku nañ ko wala am na yàgg naa man de sama at yegg sama nopp dégg-dégg bëreegut xëy na nag adduna noom feegi yàgg lu nekk mën naa jote man naa dabe ndax fàttaliku nga foo xam ne dañ ne toog nañ atam lëmb nawet amul yaa ngi ko fàttaliku nga ko. nawet boo xamul mooy lan. maanaam ñu toog comme ñu ne yàlla ji daal taw comme noor la mel ba ba mu dërsiwaat ndax fàttaliku nga ko fu mu amee. ah dëgg dëgg dëgg yaa amee laaj cee mbaam daa yaa bon. Eh, waaw Modou bu fekkee dañ ne mois de nawet lañ nekk ñu dem ba soin bi da jeex benn taw da taw tawatut. xam naa droit laajte loolu waaye bu mu wax affaire ay mbaam ay nangama nangam dafa am yoo xamante ne Modou bu du man nga jox ma naw dañoo xam ne dañoo ànd ak man man damay laajte laajte dara naw si dama laajte ndax yow mos nga koo dégg wala wala dégg-dégg yegg na te aduna loolu yow loolu xam nga ko lu ñu ko tuddee ci wolof nawet bu jéeg nawet boo xam ne nawet bu jéeg ñu war a taw tawut ba nawet ba waaw kontaan ñaan te do loolu boo ma yow de billaay loolu boo ma précaire laa bëgg de de bul waat bul waat lu ma bëgg man dama la waa dégg waa dégg dégg man bi départ ko tawloo guñ dafa am ceebo yoo xamante ne dañoo dañooy weslante wax ne fi mu ren bu fa tawaatee waaw man damay laajte waa waaw déglu ma li ngay laajte xamuloo ko yow fa nga xam nga tiire mbay xam nga xam-xam nga ay suuf distribué li nga wax ay ma ci soin baa ngi sa yoon ci soin juillet lan moo ci sa yoon ci loolu taw bi yàlla ci bàq bi la ñu nawet. wa waa de waa léegi bu taw nag nit ñi xamante ne ndax mën nga ko fat mu nekk doxaj. de de de dama ne bu fekkee tey continué nañ taw tey nga mën nga ko fàttaliku yow loolu loo ci defee gas ci wax jooju yow loolu lu ko nit mën a waxee ak nu ko nit man a laajte nit ah waaw baax na man de dama doon laajte rek waaye comme yow yàlla sa boor rek waaye déedéet déedéet déedéet foofu dama gis waaw waaw la jiit ci sa boor rek yow waaye déedéet moom ne boo xamul wala boo amee yow man béykat laa man manumaa génn manumaa génn si béykat yi wax kan nga waaye doo tus man dama gis ne mois de juin baa ngi jox yàlla taw may laajte ndax ma du ko dégg dara nga waaye dama tus xam nga tey boo gisee xam ne ñoo xam ñu yore seen gerte mën nañ ko jaay waaye yow toppal fële waxi xubus rek ngay wax nga naan nga amee seen gerte ah waa kon baax na kon ñu xam yaakaar ñu dundee yaakaar rek yàlla de moom moom lu ko neex rek lay def yàlla moom lu ko neex rek lay def. wala waaw comme nga xam ne lu ko neex lay def tontu yi man laaj nga laaj pour lan la. waa de xam ne tey bu ko neexoon tamit mu bañ a taw. loolu moom bu ko neexee yow lu sa yoon yàlla gi naqari yàlla gi yow lu sa yoon ak loo caa. Euh, Modou Maram euh, baax na xam naa ne daal euh, sa yaram fa ah, tàng tey yow naa ne fële naan ma baax na. Ah, bu ma laajati yii de yii moom bu ma ko laajati moom. waaw ah, baax na ñu xëy na jàmm dama laajte rek. man de dama dama ko laajati laa wax. ma la wax rek bu ma ko laajati laa la wax. ah waaw baax na xanaa ba mu rusu sa nga rusu ñoom Babali Touré wala nga rusu ñoom Amadou Gueye ay baax rusuma ci kenn laa la wax bu ma ko laajati rek laa la wax. waaw baax na jërëjëf ñu yendu jàmm xam naa ne de métti na àdduna métti na bëgg a xam daan mooy problème